benn ak benn lee asxaabu Cheikh Naar Tijaan yi ñu ay kër ci daara ji ci jaayiro sayt bi ci ñaareelu xaaj bi ci xatam cent quarante quatre bi léegi nekkoon nañ ci question yu am solo génn laaj ko dëgg dëgg maanaam luy tasawuf ba tey lan mooy wilaaya xam nga wilaaya mooy direction bi administration bi wëli yu nag mooy fonctionnaire ba koy liggéey loolu tax nag danga ko laajoon luy wilaaya ak tey ñu koy laaj an xaqiqati wëli yi dëgg-dëgg wëli mooy fonctionnaire bi nga xam ne moo ne war a mu nekk ci wilaaya ngay liggéey waaw dëgg-dëgg si xam nga dëgg li mas ngaa dégg ku ko laajee di fa jaaba tontoo radiyallahu anhu bi qawli xaqiqatu wali dëggi dëggi kuñ ne wali hoo man mooy koo xam ne tawala méngoo naa allahu yàlla am doo ay mbiram ku yàlla jël say mbir yépp méngoo ko muy dégloo say dégg de xoolee say xooluwaay day xëñtoo say xëñtoo de waxee say wax de làmbee say làmb de demee say dem de dikkee say dikk kooku muy wëli nga jeex takk yow roogam boo xam ne yaa ngi mu mel ne yaa ngi def dara te defoo dara ah kooka nag mooy ku xam ne mooy wëli wobil xusuusiyati ci jagle na xaw ma maa musaadati afaali xaq nag mbiram yooyu daf ko defal bil xusuusiyati ci jagle bi maanaam yàllaa ko jagale loolu moo ko koy defal xànd ak nag ma nga jënoog afxalu xaqi subhanahu ma nga jënoog moom ba mu nekkee ci di di dëkk la muy def yooyu yëpp ma ngaa gis ne jëfi xaq yaa mooy dawee ci moom moom dafa de moo tax fa ngay déggee laa hawla wala quwwata wólu yu dëgg-dëgg moo xanaa xam ne kenn amul pexe kenn kattan lu may laaw rek man manumaa xëy manumaa gont kon nag soo déggee ñu wax la yow doo bàkkat sa bopp da nga xam ne yow ah xam nga mën a góorgóorlu nim la defalee kat na la ko defalee ñëpp waaye yow nag dama ci jagale jagale gu toll nag a xam nga ne li may def nii man defuma ci dara dara dara subhaanahu wa ma ko def wamaratan léeg-léeg xaala wax na musaal afxaal yi dafa janoo ak jëfiya wasifaat léegi-léeg yàlla daf koy jagle mu xool jëfi xàqu yi léeg-léeg mu jagale ko mu janoo jëf yu nga maanaam jëf ya ak sif ak melo ya mu janoo melo ya ak jëf ya ak melo ya mu giseen ñu ñuy dawe xul naa la ko wax ne ko ne ay ay ay soxla ndax da réeré alwadi wali ñu ne ko si waaw ndax wali yu mën nañ ko réere ayucalu alwaliyu wala xaarifu wala boog ayucalu ndax dana réere alwaliyu waliyu wala xaarif xaarif say andra min ahkaami sariat ndax ku dem ba yëg maqam yu laay wala ñu ne aarif la war mën naa am yum ñàkkaa xam ci attey sariat waxuma du ca xam dara ndax am na lu ndax wax atti sariat yëpp war na ko xam alman loo ma fi saa ko fiàqi caa xam ndax kooku am war naa am lu mu ci réere xaalis na ko naam waaw waaw ah ilaa bi taalib xanaa mu jàng xam nga ni nekk na wali tool mu jàng seen ate ah, la muy ate sariya moom la cee xam lu ci ca jàngoon nag mën na ko réere waaye nag dafa war a jàng nit ñi ne dañ foog ne yow mën koo nekk nag saa nga bañ a jàng déedéet il faut nga jàng nag ah wasu aalu wasu ak laaj el nga jàng el nga laaj wala tufaadu kenn du ko sotti soo min xëyri taalumin ah di nga ilaa naa lu mooy ñu tuut nag duñ sotti xam-xam te borom jàng ko xanaa ñu tuuti nag ci wàll yi ñooy toog ñoo xam ne jàng nañ am nañ xam-xam te jàngul leen waaye li ci ëpp ci wàll yi dañoo jàng bay bëgg a dee doog a xam na moo tax kon nag mu ne ko ah kenn ko am na illaa bi taalumi wa sual ak laaj kenn du sotti xam-xam nag ci kuy xam nga min xayri taalumi illaa naasi lu muy tuuti min arifi lu muy tuuti ci arifi yi wala yiitu du teg nag bi maarifati ak kaami sariat yi ñun ci xaat nag mooy tey nga xam lépp lu nekk ci hadis ak lépp lu nekk ci alquran loolu nag dëgg yàlla nit na nekk arif ba dee nag te du ci àgg kon nag ma naa gis ba ñàkk ci ihaata waaye rek xam-xam bu yokka ne mooy principal yi moom et fokk moo xam ko wala yuridu bi maarifati ak kami sereti boobu jëmee uloomi wala jëmee uloomi ak mboolem xam-xam yi ak li nga xamante ni mhm. yootaa yi dafa aajoo ilaa jëm ci anaa si nit ñi illal fadlu jaame woon nga rek fadlu jaame mhm. koo xam ne yow nga ne tey yaay jamono bi tey fadlu jaame mhm. yow am waratoo rëy ne benn xam yëpp waaye nag ñoom simple yoo xam ne ay wàllu yu simple man nañoo nekk xam li xam la moo tax boo woote tey nag tey may bu jamono bi tey teew mun laa jàng mun laa jàngale dëgg-dëgg yàlla dañu xam ne kon nag waaw mu ngi ne xam nga nit ñi dañuy jaawale wali man naa bañ a dajal xam-xam xaaris mën naa bañ a dajal xam-xam waaye nag koo xam ne faddu jaamee nga moom waaye nag nga ne man man man moom laa teew waxuma dajal xam-xam waaye yenn xam-xam la gën a tuuti xamu ko waxuñ ko de ñii la ñi am na ñoo xam léegi daal ñii layal nag naa ja kii dara di sàngam jàngu na di sàngam jàngu na nga bëgg ñu sukkandikoo déedéet sut nag wilaay boo xam ne moom wilaay si tijaan yi moom il borom day am xam-xam yii nii suñu wilaay wilaay yii al yawma matlabi lahum loomu saa yu fa tasawuf xam-xam saa yu fa ànd dégg a ñàkk moom xaala wax naa al cheikh ay yaas yi cheikh yaas yi la al wilaayatu wilaayatu minhu ci moom a taqam a danga taqadamat a jit na ko xidmatul liggéey moom day wax mu ne wilaay boo ko déggee day fekk liggéey ba bëgg a dee moo ko jit ndaa liggéey ba bëgg dee wilaayat jiitu nga nga maam doo liggéey moo tax ñu ne kaala bu njëkkee ci bopp du baax kaal day nekk ci ndigg na nga takk sa ndigg ba nga xamante ni liggéey nga ñu doog ko tekki daf ko ci bopp bopp moom moom day lu la xam ne al wilayatu minu taqadamataa xidmatu waqaala wax na sayq naa arak ndaa xan hiya moom maadu minnatin sell xewle waxal taqadamahaa bokk da ko jitu maadu xidmatu la ko sufian ci la mu ne xewal bu sell koo xamante ni la ko jël jitu mooy liggéey bu sell jur ko loolu la Cheikh wax inta yenn xaw wasaatoo laaj naa Cheikh radiallahu anhu xan qawlihi waxi gars yi anhu ina daairatul wali awsa moo gën a yaatoo mi daayit nabi ëttëb nabi loolu day Cheikh bëgg naa ko dégg ëttëbu wilaaya tourné wilaaya doxin doxal wilaaya ëttëm moo gën a yaatu ak ak nuboo waaw Cheikh wax dëgg lu may demee ëttëb wali bi wilaaya moo gën a yaatu ëttëb nabi loolu lu muy demee waa jaaba tontoo radiyallahu anhu bi qawli almuraadu bil wali awliyaaw xaa seen umati boo ko déggee nag mooy waliyu waa waliyu xeetu yonent bi lay wax loolu lañ def faqat dong waa duñ doo waliyu woo fekk rek déedéet awliyaaw umma bi nga xam ne mooy umma Muhammad seen ëtt yi moo gën a yaatu ëtti nabi yi war maraad mi nu nag liñ na ma ci moom man eh, mi na nga ah, man amara man umira koo xam ne ñu ko sant bi daawatu oote wala yoo xam ne am na digal ci oote illaa ji kenn sa ala miri jaalihim seen gaa yi foofu mu ñoom àll si na ma yoo xam ne daay room daay room seen ëtt yëpp aw soo moo gën a yaatoo min dawaayir aw anbiyaa yi ëtt anbiyaa wax dëgg wali yu wokk ci xeet wi tey ñu jox la ne ooteel yaa gën a yaatu ëtt wali yoon ci yaa xam suñu wali yu Sénégal ku ne la topp ci ay nga seet yaa appelé Moussa yaa appelé Ibrahima yaa appelé Insa kon nag te ñu gën a ñooñu gën a xam ñeneen ñi nga gis kon nag kon nag mu ne wala yoo xam ne am na ndigalu oote ci xeetu yonent bi ëttam ba moo gën a yaatu ëttam yaatu ëtt ba wa diqatuha ak xatam ba bu ñuy seet bi yaatu na kii ëttam bi xat na ñi ngi koy seet bi xibaari tawaay bi ñi ngay seet euh, mbooloo àll ci nga xam ne yeddu xorom ñu ngi leen di o ilaa jëm ci yàlla taala kawe naa loolu la seet nag buñ ne kii de moo gën a yaatu waar wala moo gën a yaatu ëtt kële mu ne duut ci dikki da seet nag kenn ku ne mbooloo yàlla topp ca lañ seet buñ seet ca mbooloo ya topp ca la ñu xool ne kii de dëgg-dëgg euh, euh, wali wii la ko topp moo gën a yaatu la toppoon du sanga kon mu ne kon nag foofu la ya ba nekkee bi ñi ngay seet ñi nga xamante ni bii kibaar it dawa fi allasina yadduxoona ilallaahi taala foo kullu rasulin bépp yonent mi ne rasul ci yonent yi xayri nabi naa kurti nabi bi risaalatoo yonent ko jégle bi mawtinin dëkk benn dëkk yéen ci paas yëpp benn dëkk rek wala ay bokkam aw jintin wala xeet séeréer yi lañ ko wala wolof ya nangam loolu moo aw baltit wala benn dëkk laa yetta adda jàggatu ilaa xayri yi jëmtul moom mën nañ yenn ko ci réew wala ci benn nation wala ci dëkk du ko romb risaalam wa risaalat si luñu risaala nabi bi nag salaam salaam haa matul dafa matule di jëmeel daal yi boo leen réew wal aqtaari ak mboolem gox yi bu fi demee ay naas ak mboolem dégg nga nation yi wal umam mi ak xeet yëpp bu fi demee asaari ak mboolem jamono yi ñoom yonent gi wa maa arsalnaaka illaa kaaffatan moom dafa dikk pour daj suñu yëpp loolu wal awliyaa wali yi addaa oo nañu oote illaa jëm ci yàlla min ummati yi ci xeet yonent bi daa awatoom seen woote taw mu day matle ko umami risalatul nabiyin kem mataleeg seen oto yonent bi noonu la wali yi kat yonent bi mel dañuy matale comme ni matale oto bi yonent bi moo tax nag kon li ñuy xamee nag wali wii ci fii ku la gën a yaatu loo woote ku la gën a yaatu réew yoo dem kooku nag moo la gën a yaatu ak ak ak kon nag dañuy seet fii ku fi oote tey yow ñaata dëkk nga dem ak ñaata réew nga dem ak ñaata xeet ñoo la topp kon nag foofu nag li nga xam ne ah kon nag risaala gi nag kii nag lim doon ci risaala Muhammad yi moo gën a yaatu kenn lim doon ci risaala Muhammad yi kon nag falaa taxtasu du jogo du jogo moom bi baleen benn dëkk wëri yoo xam ne dafa taxaw di oto oto yonti du taxaw benn dëkk wala jintin jaagal benn xeet wala umati nduut benn benn benn maanaam nation wala umati jaagal benn xeet bal hiya moom xaamatun day matale ko umam risalat nabi comme na nga xamante ni noonu la matale risaal yonent bi salaa salaam fa lii boo ko déggee ne gën na yaatu gën na yaatu it sama daayiratu wali la ñuy waxee ne ci la gën a yaatoo daayira waliyu ilaa daayiratu nabi fii lañ waxee waaye du foo déggee nag wali woo daje rek moo gën a yaatu ah, ndaxte am na wali yoo xam ne kenn xamule kooka nag moom dafa dikk moom wilaayam gi xam nga dafa am koo xamante ni maanaam wilaa wilaaya ne xëy mbët xam nga mbëtt mbëtt mbëtt gereesam bi doy na ko sëkk mënu caa may kenn <laughs> dégg boo xam ne mën nga caa yëkkale ak wilaay boo mënta yëkkale ah. dafa dafa am na wilaay gi borom mën a yëkkale yëkkale yu rëy kooku la ñuy wax ne moo gën a yaatu waaye wilaay boo xam ne borom mënta yëkkale dara kooku kenn du ma wax ne yaa gën a yaatu la su ma aar daawat tampanal bi oote laay jëm ci yàlla fi xàqil awliyaa ci ak koy wëlu yi boo déggee ñu ne wali yi ñu ngi ot seen àq yema maltoo ma tun dañ mu taqaloo ñoom bi tariqa sari nag ñoo ko jaar ci yoon sari waaye tariqa du oote booy oote sariya ngay ootee saayiri saayiri ba xëy li xawli salaa salaam balli ko jotal alton wala aaya loolu ba mu ko waxee a addis bi dafa dikk pour ñëpp waaye dafa dikk pour ñenn na même bu dee benn aay sax yow mi yore tariqa bi fexal daal nga oote kon nag alxadis wa bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam muru santaan leen bil maaruf loo xam ne xam nañ ko ci dëgg wanoo aaye leen xal munkir loo xam ne dëgg da ko ñaaw loolu la yonent bi kon wax kon nag boo dikkee di oote doo dikki na suma bàyyi nee na suma maam nee na da wax ne yonent bi nee na loolu dañu laakin haati dawaa boo ko oote almaskoratu buñ tudd xu naa fi moom bil ismi yaa koy amee ci ndigal alxaas nag bu ku jox rek ne man nag damay nekk daawa daawa daawa yow jàng rek ba mën a jàng rek nga daal di am sa alal rek bëgg a taxaw di dem damay def daay man daay la daay la déedéet nag fekk na nga am ndigal woote ka ismi risaala ni nga xam ne nga am ndigal risaala loolu de boo ko amee sa oote ba dafay neex moo tax nit ñi nag dañu xaw dañu gaaw yàqante fa man naa ada ku buur jëm ilal xalqi ci bindi fi yadoo xoo mbir oo ilaa jëmil cal ta ala bil isri ci ndigal alxaasi boo xam ne ndigal spécial la xoo mais nag bàyyi ko ci àll waxuma ndigalu bàyyi ko ci nit de ku jóg di oote te am nga ci ndigalu bàyyi ko ci la yàlla ah sarat day rañaa day day day dugg sarat dafay rañaan ka ah, dégg nga kalimatoo baatal fi jëmel xuloo bi day dugg ci xol koo xam ne la ngay waxal am nga ci ndigal soo ko wax wax ji day dugg ci xol ah wa waqaa dafay am al iqbaal jublu min al xalqi ñu mbiri àll ci moom nit ñi dañ ko duuti wala am nangu loo ñel ko nit ñi dañ ko dëgg la ni wax dëgg la ni wax dëgg la wa waqaa boobaa dafay am nag imsaalu am yi ca la ni ngay taxaw ne taxaw taxaw temm ci ay sitaaneem boo ci naa bi nabi ñu mën a moc ko ay tëram doo xalqi ñu bindi wu utaa ni ko ñu daal ñu ne ko topp su ko defee waxalaa dafay nekk kàllaama kàddoom bil xoloo bi ci ko li kenn ku ko def nag sa wax dafay neex ci kàddu sa day neex ci xol lool boo waxee rek ñu yàqal dégg leen dégg leen dégg kon nag loolu mooy risaala boo xam ne borom def maanaam wilaaya boo xamante ba muy oote am na ci ndigal soo ci amul ndigal lu yàgg-yàgg wilaaya dina yàqu loo bëri bëri mbooloo gannaaw tegaloo ko ci eh, ndigal daa yàqu yàlla na yàlla mosal moo tax kon nag wa man tasaddara lil masiqati qabla wujuudi ismi min allah képp ku diji ne yaa ngay doxal cër te amul ndigal lu bàyyi ko ci yàlla faqad yaa diinahoo wa dunyaahu wabtadaa bayna am ajati kon nag dana yàq na di addinaam ak diinaam dana am gàcc balaa moo de kon nag lii tax lii tariqa bi bu ko indi duut comme neex rek mu cap yëpp rek ut kaar rek jom ci laa boo bu ñu ne ndigal lu bàyyi ko ci yàlla xanaa xamuloo ne yonentu Cheikh balaa moo def dara laaxoo moo jox ndigal yonent yonent jox ndigal cheikh cheikh doog laa jox ndigal kon ndigal li moom jot la ci doon kon nag moo tax ashaabu ka ashaabi yow say àndoo yén na ko yow say àndoo am na man nañ àndal kon nag ndigal li ba jotee fii fa lay baaxee waaye foo jotee ndigal pour fii sa ndigal dafay nekk ci neen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu